alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit di mbokki téléspectateur yu 2STV yéen ci biir réew mi bitim réew ak fu ngeen mën a ne dend seen télévision la 2STV waaye dend ak seen rajo origine FM 88 point 4 desuwaat nañu ak yéen seen jotaayu daara ji ñu tuddee tafsirul Qur'an ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ñu leen koy defalee fii ci Tiwaawan waaye di leen ko defalee fii ci zawiya Maam Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu di leen nuyu bu baax nag di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm defal ñu ko. gàmm gii ñu génn bër ci démb boo njaay yal na yàlla nangul ñu ci lépp lu ñu ko ci ñaan waaye rek yàlla na fekk ñun ñëpp ñu defe ko ni ko borom bërëb bu tedd bi waxe maam Cheikh El Hadj Malick ca alaam ja adimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu macha allah muy wax jom solo jum waxoon màggal gi am na solo lool waaye na dëppoog sunna ndax moom lépp lu muy def maam Cheikh El Hadj Malick di ci bàyyi saxal sunna ñu ziyaare nag bu baax suñu kilifa gi ñu fi fekk sëriñ Afe ñang am ñangeen la nag waaye macha allah bi ñëwee moo ñu yaatalal daara ji bu baax nag macha allah di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waaye nag nuyu ziyaare fii boo fi duggee Tiwaawan da ngay xam ni tila Tiwaawan dafa am kilifa kilifa gi nag mooy sëriñ Babacar Sy Mansour Al Khalifa macha allah di ko ñaanal yàlla mu defal ko wér defal ko jàmm di ko ndokkeel ci xew-xew yi jàll macha allah moo rakkam yëpp Cheikh El malik Malick Sy Maodo suñu soppe suñu mag suñu xarit macha allah di suñu doomu bàjjen waaye li ko Serigne Mouhamadul Moustapha Gueye at-Tijani daan wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana daan ko wax ni ko ñun jaay nañu ak sang gi jënde ko ak taalibe kër Cheikh El Hadj Malick mënuñu fi doon ludul taalibe yàlla xam na loolu mënuñu fi doon ludul taalibe ñu ziare ko ziare Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz suñu soppe bu mag boobu nga xam ne moom it du deñ di ànd ak ñun ci tafsir bi. ñu ngi koy ziyaare bu baax borom daara ji yal na ko yàlla na yal na yàlla yàggal ko defal ko wér waaye ziyaare njabootu Cheikh El Hadj Malick si gépp nag amul ku ñëw ci bàyyi ziyaar nañ leen ñoom ñëpp nag macha allah yal na yàlla defal leen tawfiq defal leen jàmm defal leen taysiir macha allah ziyaare Serigne Cheikh bu Serigne Mouhamadul Mansour macha allah mu Cheikhul Khalifa mu Cheikh El Hadj Malick macha allah suñu soppe suñu Serigne suñu lépp macha allah. maa ngi koy ziare ziare njabootu sëñ Mansour yëpp nag macha allah sëriñ Habib suñu soppe suñu xarit macha allah ñu ziare ko suñu sëriñ ziare ña fa nekk ñëpp nag sëñ Mame amul kenn ku ñu bàyyi ci kër sëriñ Mansour macha allah. bàyyi fàttewu ñu it njabootu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ñoom ñëpp ziare leen wàcce leen seen wàccu waaj ñaanal leen jàmm ñaanal leen tawfiq ñu ñëpp it yal na yàlla defal leen tey si yal na yéen bi diis na ni ma koy waxee rek sëriñ Afi yéen bi diis na waaye sa góor ga bàyyi xalifa ngay daan wax naan nit bu amee yéen bu diis doo ko ko ñaanal mu woyof da nga noon ku ne diis gann waaye yal na la yàlla téeñal loolu rek lañ leen di ñaanal seen télévision la 2STV kon indil leen tey seen tafsirul quran bi fii ci Tivaouane macha allah ginnaaw ba ñu gàmmoo rek ñu ni rek ñu ngi wéttaliwaat leen fii semaine soog a delluwaat ci soxla yi macha allahu ñu ngi ak yéen seen saar bu am solo bi di sourate Ali Imran bi ñu fiy mujj maxtaar amoon nañu cent huit muy téeméeri aaya yu teg juróom-ñetti aaya tey ñu war a jël cent neuvième verset muy téeméereelu aaya bu teg juróom-ñeenti aaya ci seen saar bu am solo bi di suratu Ali Imran di njabootu amran ji borom bi ni walillahi ma fi samawati wa ma fi ard ak am solo wax yàlla nit linga moom war nga di ko wax nit ñi ba ñu xam ni lii sa moomeel la dafa solo yàlla nee na fii bu fi kenn tiitaru bu fi kenn damu bu fi kenn wonu ba defee ni am nga ci sama alal ji dara lépp maa ko moom walillahi maa fi samawati wa maa fi l ard milkan wa xalqan wa abidan nag saa su ne damay wax ni yàlla société bi mu am lu si actionnaire majoritaire moom moom action yëpp amul benn dig daggitu action bu mu ci jox kenn lépp moomeelam la mu téye ko moom yàlla comme li ma leen di wax rek da ñëw ci société ay nit bokk ko ñu ni ku ñii am nañ ci trente pour cent ñii am nañ ci vingt pour cent yenn saa yi sax nga gis ko ne am na cinquante pour cent mooy actionnaire majoritaire maanaam kenn du fa décider dara lu dul ni kàddoom daf cay am sox doole yenn saa yi am nit ku ci am soixante soixante ba quatre sax quatre vingt dix wala neexee mais yàlla nag ki amul du ñu ni société bi mu yor addu asamaan ak suuf am na ca quatre-vingt-dix-neuf virgule déedéet du ñu wax lool cent pour cent lu ko téye moo tax mu ne la walillahi ngel na yàlla maa fi samawati lépp lu nekk ci asamaan si ak wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci suuf si waaye xam leen ni wa ila llahi turjaul mbir yëpp ci yàlla lay dellu allahu akbar mbokk yi bu ñu bàyyee xel ni mbir yépp day dellu ci yàlla nit ñépp dañuy dellu ci yàlla ka gëm ak ka weddi kay mooy yàlla ak ki teg ci li neex yàlla ñoom ñépp seen mbir day dellu ci yàlla yàlla atte leen te wala yazlimu ahadan minhum yàlla du tooñ kenn ci jaamam yi xam nga wiiri wiiri jaari ndaari loolu mooy wa ilallahi turjaul umur soo fi nekkee di tooñ nit ñi soo fi nekkee di def lu la neex soo fi nekkee yor comportement bu yàlla gërëmul yàlla yàkkamtiwul day toog rek di la xaar alaa taxsabanna allaha gaafilan amma yamalu zalim yàlla nee na yàkkamtiwu ma de sàgganuma ci ni tooñkat yi di def mais dama xam ni sàcc bu dul raw jarta yàqi nelaw damay toog rek xaar leen ndax wa ila llahi turja'u yi ci borom bi subhanahu wa taala lay delluwaat wa ila mbir yépp nag ci borom bi subhanahu wa taala rek la mën a delluwaat bu pare ci loolu ñëw di ñu wax ban xeet lañu ak lan lañu war a xam nit nit dangay xam sa valeur xam yaay kenn doon magum lëndëm bu la kenn dajulit nga daj sa bopp mu ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas allahu akbar yàlla nee na yeen xeetu sayidna muhammad ndax nag li waral sababu nuzul hadihi al aya mooy Malik ibnu Sayf ak Wahb ibnu Yahuda ay ñaari yahud lañ dañoo waxoon Abdullahi ibnu Mas'ud ak Ubay ibnu Kaabin ak Muaz ibnu Jabalin ak Salim Mawla Xudayfa ni leen ñun ñoo leen gën ñoo leen gën diine ñun ñoo leen gën suñu diine moo gën seen gi diine ji fuuf li ngeen ñuy woo li tax mënuñu leen see fekk si mooy yéen ñun dañu leen a gën te ni ñu leen génne noonu la suñu diine génne seen diine kon du ñu fekk ñu li gën ñu yor ko fekk ñi nga xam ni ñoo yées ñuy déglu seeni kàddu ak seen diine defuñu ko loolu lañ bëgg rek mu leer seen bopp ni defuñu loolu xalaatuñ ko sax nag xamuñu ni ngëneel du ay wax yàlla nee nañu ci alquran inna ko min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu waaye xam leen ni inna akramakum inda allahi atqaakum borom bi subhanahu wa taala nee na liy jur ngëneel ci yéen ragal yàlla la ku la ëpp ragal yàlla kooku la gën kooku mooy ki la gën boo yoree nag lu gën dangay ngay jéem a gën soo yoree lu gën da ngay jéem a gën te ñun li ñu yor moo gën muy diine ji nga xamante ni moom la ñu wàcc ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ñuy xeet bi gën ci xeet yi yàlla wax ko ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yàlla ni eh abdullahi ibnu mas'ud ubay ibnu kaabin muaz ibnu jabal salim mawla abi salim salim mawla xudayfa yéen ñëpp xam leen ni yéen ñii di wax ak yéen bu leen leen toppatoo bu leen leen faale ndax yéen a leen gën fuuf ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mbokk yi loolu doy na teraanga loolu doy nag màgg loolu doy na rëy loolu doy na nga bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ni yàlla daal fonk na xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax naan li leen di wan nii yéen a nekk ci dëgg mooy xeet bi ngeen nekk moo gën te xeet la woo xamante ni ku ci nekk ci góor góorlu mu teer ak yow àjjana xanaa ko bañ moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci ko ci xadisu abu hurayra ba ni kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man abaa qaalu wa man yaba ya rasul allah qaal man ataani daxal aljanna wa man asaani faqad abaa gën ngeen ba pare ndax xeet wi ngeen bokk ku ci góor góorlu dina dugg àjjana xeet wépp dinañ dugg àjjana lu dul ku bañ a ah, ñu ni ko nu ñuy bañe nan la nit di xame àjjana ak xéewal ya fa di bañ mu c'est très simple man ataani ku ma topp man mii daal daxala aljannata dina dugg ajjana waaye wa man asaani ku mooy sama ndigal faqad aba kooku moo bañ yomb na topp yonent bi mu teer ak yow ajjana ñàkk ko topp mu teer ak yow safara te nag taatul hadi farata la borom rawdu bi borom béréb bu sell bii ñu tëral fii maam Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu waxoon naa leen ko ci tafsir bii ñu génne ni waxoon na ca xilaas ni wa waajibun taatu lhaadi mahabatuhu kaza tibau allazi yati min al nee na dafa war ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu ñu topp li nga xamante ni indi na ko ci sunna mu ni nag topp yonent bi bëgg yonent bi du ay wax de la hal alaamaatu am na ay mandarga yoo xam ne su nekkee ci nit ki dinañ xam ne moom day ku bëgg yonent bi la ku topp yonent bi la mu ni inna aadamaha la ca gën a màgg nag isticmaalu sunnatihi jumlatil umam nee na di dunde di di di roy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbir yëpp maanaam jullit soo bëggee noppalu da ngay bàyyi sa bopp ak yonent bi looy def laaj ko nuñ koy defee looy def rek laaj ko lu ñu koy defee waaw moo lay noppal di laaj yenente bi nan la ñuy defee moo lay dimbali moo lay noppal moo lay sagal ci li ngay def mu tax nag bu ñu bëggee nekk gën ji xeet dañuy doon gën ji nit ngën ji nit nag du ay wax yu ñuy wax waaye ay jëf la yu ñuy jëf moo tax mu ni nag kon kuntum xayra ummatin yéenay gën ji xeet yoo xamante ni uxrijat linnaas génne nañ ko ci nit ñi waaw tax waa banu Israil yàlla da leen wax naan ah waa ni faddaltukum ala al alamin ah Abdullah ibn Abbas ni la seen seen seen niti jamono la woon ñoom seen niti jamono waaye jamono ji ñu fi gën dee mooy xeetu sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yàlla bi mu waxee loolu ba pare nag daf ñuy wax bu ñu bëggee gën googu dëggu yan melokaan lañuy yor pour suñu gën gi ñu war a gën doon lu dëggu mu ne bi si njëkk mooy ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari ñetteel bi wa tu'minuuna billah Cheikh El Hadj Malick Guèye wallaay sa turandoo bii tëdd fii yal nañ ko yàlla fayal ñun di dimbali nañu teg ñu ci yoon woo xam ne buñ ca tegoo dinañ xam ni moom lim daan digle mooy digle lu baax lim daan tere mooy lu bon lim ñu daan xiir mooy gëm yàlla loolu it la soppeem bi wax te moom dafa bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam xoolal Cheikh El Hadj Malick sëñaa fi xoolal pas-pasam ci Cheikh Ahmada Tijani ni mu rëy bëgg Cheikh lool fonk Cheikh lool waaye nee na ah bu may roy nag dañ ni ma naa roy waa kuñ ko royloo nee na mooy Sayyidina Muhammad loolu waxin la xam na ni ki mu bëgg xam na ni ki mu fonk xam na ni kii mu tey muy Cheikh Ahmada Tijani fonkul royul ludul ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag li tax ànd ak moom wóor mooy wa aw tutiuhu tahtadu gis nga gàmmu ren gi eh, thème bi mooy hadiyu rasul nu wajjihul bi hadiyi rasul nu wajjihul ajyal loolu mooy thème central bu gàmmu ren gi maanaam ci yoon wi nga xamante ni moom la sallallahu alayhi wa sallam tëral yoon wi nga xamante ni buñ ca jaaree du ñu sànku du ñu réer ndax mooy wi yenente bi gërëm nee na si la ñuy fas new orienté génération yi ñëw yëpp ba ñu xam ne nii la yàlla bëgg ñu tegoo ci léegi nag boo bëggee bokk ci ñi gën ci xeetu yonente bi dafa am nag ay mbir ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle lu baax di maanaam digle lu baax bul defee ni yow jullit bi dalay neex nga digle lu baax mu naqari la nga bañ a digle lu baax déedéet loolu farata ci ñun ta'muruuna bil ma'ruf yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba mu defi xutbaam ba mu defoon ca jabalur rahma ca arafa ba mu paree dafa ni fal yuballigh ash-shahid minkumul ghaib képp ku teew dégg sama kàddu gi na nga ko jotal nee nañ am nañ saxaaba yoo xam ni ba yonent bi waxee loolu duggaatuñ seen kër ba ba ñuy faatu dem rek ci mission bi ba bi bi di génn àdduna ñoom dég-dég lañ ci am ndax fekk na leen ñu sori ta'muruna bil ma'ruf da leen digle lu baax wa tanhawna anil munkar ngeen di tere lu bon waaw nit soo ko bëggee di digal nag lu baax pour mu koy def di ko tere lu bon ngir mu bàyyi ko dangay ngay fexe ba yow mi koy digal sa lisaanul xaal di ko wanni ko yow de bàyyi nga lu bon te yaa ngi def lu baax ndax lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqal di wër nit ki rek saa su ne di ko waar waar bu dul jeex di ko digal yàlla lii la santaane yàlla lii la bañ te yow li ngay digle yow doo ko def amatukal xayr laakin tamit bi boo demee ca Muhammadul Busayri man de maa ngi lay digal yiw rek toujours waaye man de li may digle moo ne taxul sax day ma defe ko ni ma koy diglee loolu nag baaxul parce que nag bokk na ci lay yombal kàddu mooy yow mi koy wax ki koy déglu yëg ni ci sa xol la jóge moom la tubaab naan ce qui vient du cœur va droit au cœur kaddu gi ngay wax pour mu dugg ci xolu ki koy dégg faw mu jógee ci sa xol yow mi koy wax waaye bu dul lool lu dul wax nii rek waaye bu la xoolee amul dara lu mu naw ci yow ci sa jaamu yàlla bu dee yaa ngi dëkk toujours dama koy wax mbokki daara yi Haj Malik nga dama naan mënoo dëkk ci koñ di waaraate guddeeg bëccëg di xiir nit ñi ci diine yàlla nee na lii yonent bi nee na lii na ngeen fonk julli jàkk te yow kenn du la gis ca jàkk ja ca koñ ba ah, bari na ci ñi mel ni man ay oustaz ak i waaraatekat yoo xam ne mën nañoo toog fukki fan juróomi fan wal iyaazu billah seen koñ ba ñu nekk du ñu leen gis benn julli gu ñu jullee ca jàkk ja ku am gànt nag sa gànt moom dugguma ci loolu sa digganteek sa boroom la waaye wax dëgg yàlla ah yonente bi ne woon na ida raaytumu rajula yaataadu almasjid aw almasajid fashhadu lahu bil iman ne bu ngeen gisee nit ki muy taqoo ak jàkka seedeel leen ko ni ku am iman la boo demee ca sabaatun yudilluhumullah mu ngi ko cee gën a leeral waaw waa joo xamante ne qalbu muallaqun bil masajid xol bi dafa taqoo ak jàkk mbokk yi ta'muruna bil ma'ruf sooy digle lu baax dee ci jiitu dee ci jiitu dina yombal ki koy sant mu ne ah, moom de li may sant mu ngi ci de mu ngi ci de wa tanhawna mun munkari sooy tere lu bon dee ko njëkk a bàyyi sooy tere lu bon lu bon loolu ngay tere dee ko njëkk a bàyyi yow mi koy tere wa tu'minuna billah bu ngeen diglee lu baax ba pare di tere lu bon dee leen gëm yàlla gis nga ñetteel bii nii moo lay dimbali ci ñaar yi jiitu maanaam am iimaan mooy tax nga xam ni yow danga ngaa war di digle lu baax waaye am iimaan mooy tax nga xam ni yow da war a tere lu bon boo amul imaan loolu du la yomb pour nga xam nii danga nga war di digle lu baax di tere lu bon moo tax mu ni wal wa wa tuminuuna billah ni ngeen di digle lu baax di ko tere lu bon war ngeen war a amee imaan lan mooy al imaan nag wala mu xam-xam ba nee na laysa al imaanu bit tamanni wala bit tahalli walakin maa waqara fi l qalbi wa saddaqahu l amal nee na ngëm yàlla du mbub mooy sol du mébét yooyu mébét du takkaay yooy takkoo du sikkim booy yor bu kaal du kaala gooy kaala woo du kurus gooy yor rek du yooyu mooy tax ñu jàpp ni yow ku am iman nga nee na waaye ngëm yàlla fa mu fa mu sax nekk fa mooy ca xol waaye soo jëfee sa jëf mooy wane ni ku gëm yàlla nga ndax lu waay ju wuyoo da koy nuroo maa waqara fi l qalbi wa sadaqawul amal nit nit ki bu jëfee rek nga war a xam ni ku am iman jëf la soo jëflanteeg moom du la wor soo jëflanteeg moom du sàcc soo jëflanteeg moom du wuruj du wax lu dul dëgg ku mu séqal lu leer lay def ak yow moom daal lépp lu muy def day xool nan la ko yàlla bëggee loolu mooy mooy al imaanu billah waaw saxaaba ba laajoon na ko moroomum saxaabaam lan mooy taqwallah ak lan mooy iman mun ko xanaa ndax mosoo dox ci àll bu am ay dëkk mun ko waaw mun ko noo def mun ko ginnaaw dama defoon tànki neen moo tax fi may teg sama tànk dama koy xool ndax foofu amul dëkk mun ko loolu mooy taqwallah loolu mooy al iman mun kon wa tuminuna billah ngeen ngëm yàlla al imaanu billah nag dafa am al ay arkaan yu mu àndal an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tuminu bilqadar xayrihi wa sharrihi wal yawm al axir wa tuminu bilqadar maanaam muy juróom benn ponk da ngay gëm yàlla gëm ni malaaka ay bindeef yu yàlla bind la jox leen mission gëm yonent yi gëm téere yi gëm ni loo fi mën a defit yowmal qiyaam dina ñëw ñu àtte mbir yépp waaye gëm dogal bi su neexee yàlla su naqaree yàlla nit day nangu dogal wax naa leen ko bërki démb borom zaawiya bu tedd bii di Cheikh Al malik Malick na wax na ca Taysiir di yàlla ñun dañoo pare pour dékku say mbir ndax wa naafidun xaakimun fii naa iradatuhu kama yashaau wa jalla yallahu yàlla moom dafay dérouler cofe maanaam bëgg-bëggam ci ñun comme na mu ko neexe moom yàlla maanaam li ko neex lay def ci ñun ndax moom faalun li maa yuridu la moom li mu namm rek lay def moom yàlla mu ni ko nag waaye boo demee ci biir Taysiir mu ngi koy wax ko xam nga lu ñuy lu ñu lay ñaan yow yàlla mooy nga may ñu rek ba loo def nañu neex loo def nañu neex wa radini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yallahu yàlla may ñu rek ba boo ñu tegee nattu may ñu xol yu ko àttan ba waxuma la sax ñu yëg ni dañoo war a muñ waaye nañu yëg ni am nañu mbégte wax naa leen suñu maam ju baax maam Thierno Birahim Mbacke daf ko daan wax daan na wax naan man man Thierno li ma sante yàlla mooy lu yàlla def neex na ma su ne ko diw dafa gane àdduna mu ne alhamdulillah ñu ni ko diw dafa génn àdduna mu ne alhamdulillah ñu ne ko waa Mbacke yow ñaari jëf yu bokkul nga wax ci benn wax mu ne ki ko jëf mooy kenn rek mooy yàlla kon Cheikh El Hadj ni ko ah wa naafidun xaakimun fi na iradatuhu waaye kama yasha wajallahu waaye nag liñ lay ñaan rek mooy wa raddini bil qada rabbi musabirani ala balaika ya rahmanu ya allah yàlla yàlla nag ñoom may ba li ngay def sa dogal nañuy neex doomam ju baax ci sëriñ Babacar Si radiallahu anhu ni ko rabbi qadayta fa raditu bil qada taxkumu ma tashaau fa xukmuka mada yow yàlla dogal nga li nga dogal waaye man cheikhul xalifa de d'accord naa te kontaan naa ci li nga dogal yow yàlla yay dogal lu la neex te li nga dogal rek mooy wéy ah li nga dogal rek mooy wéy yàlla moom li ko neex lay def te loolu ko neex soo bëggee noppalu na la neex ndax su la neexee ak su la naqaree loolooy am ndax turiidu wa uriidu wala yakunu illa ma uriidu waaw da ngay bëgg ah man yàlla ma nam ma leneen lu bokkul ak li nga bëgg nee na waaye yëgal ni li ma li ma bëggee am de soo comprendre nag ba nangul yàlla yàlla ci mbaaxam mën na fexe ba li nga bëgg am mais du tee moom la mu bëgg mooy am dina fexe ba wëlbati sa bëgg-bëgg dugal ko ci lam mu moom yàlla ba far loola mujj laa neex loolu da lay mujj neex loolu nag mooy nangu mooy lan mbokk yi da ngay gis ku war a voyager ñëw ba aéroport raté volam bu ratee volam pour moom àdduna dafa war a tukki bu dee ku amul sag wala amul sago day wër di mbëkk miir yi defee ni tey àdduna tukki ci loolu rek mu ne waaye bu fekkente ni nit ku dal la danaan looloo neex yàlla bu neexoon yàlla du ma ratee vol bi léegi nag boo waxee loolu yàlla day kenn xamul programme am pourtant de avion boobu nga raté yàlla mën na am sax programme na ci avion ba loo yëgul musiba mën na caa am gis nga boo bu loolu amee ba nga yëg ni ma la ko mën a waxee ci avion noonu laa la ko mën a waxee ci oto man laa la ko yenn saa yi nga ñëw garage wala di war a dugg benn oto ñëw ñun la benn place ci des ba depart na diggante boobu ngay tardé bul ko réccu ndax mën nga jékki-jékki dégg te oto ba dem dara rek nga xam ne daal ndekete yàlla li mu planifié xam na ko mu ni kon nga gëm dogal mu ni walaw amana ahlul kitaab yi ñoñ téere su fekkonte ni gëm nañu la kaana xayran lahum moo doon gën ci ñoom gis nga bu ñu gëmoon dinañ xam ni gëm googu la kaana xayran lahum mooy la gën ca ñoom waaw looloo gën de mu ne nag minhumul muminuuna am na ci ñoom ñu gëm yàlla minhum am na ci ñoom al muminuuna joo xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wér nangul yàlla te xam ni yàlla rek kay dëgg boo jële ci misaal ku mel ne Abdullahi ibnu Salaam kenn la ci ñoom gis nga ci foore yahud yi la bi mu duggee ci lislaam dafa ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dama bëgg nga invité sama mbokki yahud yi ñu ma làqatu ci béréb nga laaj leen kan mooy abdullahi ibnu salaam bi mu ñëwee làqatu gisuñu ko yonente bi neen waaw abdullahi ibnu salaam moom mooy kan ci yéen ñoon ko kooku day ci suñu fóore yi suñu borom xam-xam yi la ñi gën ragal yàlla la tagg koo tagga tagga tagg ba doyal mu génn di yéen du yéen a wax loolu ci man mun waa kay dama bëgg ngeen xam ne waa jii nag di sallallahu alayhi wa bis ni tey gëm naa ko ñu commencé daan ko gëmul dara ki sikkal ko sikk bu ne waaye fekk ni moom bay wee na mbus mu ni minhumul mu'minuun waaye nag wa aksaruhum alfasiquun nee na ñoñ téere yooyu ñi ci ëpp nag ñi ci ëpp ci ñoom ay génn topp lañu ay kàccoor lañu ay wàcc yoon lañu maanaam yoon win leen tëralal fi leen jaarloo ñi ëpp ci ñoom dañoo wàcc yoon woowu yàlla nañ ci yàlla nañ yàlla nañu yàlla musal ci ci yoon wi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko tëralal bokk jullit yi seen tafsir jeexul le waaye yegg nañu nag fi ñu war a yëkkatee jotaay bi kon ñu ngi yem ci aaya cent dix bu ñu ñëwaatee war a jël cent onzième verset ci seen saar bi di sourate Al Imran yal nañu yàlla boole ci minorité bi gëm waaye bu ñu bokk ci aksaruhumul fasiqun aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh